Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. asalaamaaleykum mbokki internet du Sénégal 4 TV Amat nañu mbégte ak contentement dikkat ak yéen ci émission bi ngeen tanal seen bokk di ëttu xam-xam mbokk yi ëttu xam-xam ñu doxantu ba fii ci diwaanu Parcelles. dendandoo lool ak station Dior seet si fi nag ku yàlla baaxal ci wàllu xam-xam ku yàlla baaxal ci wàllu ñaan di itam sëriñu daara ndax itam internat la yor fii ci diwaanu Parcelles léeg-léeg itam mu nekk fële ca diwaanu HLM Grand Yoff dendandoo ak dibiteri bu Korom ak Faye Baye Moussa Diouf borom mbiri 7 jours yi sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziare te itam di la jox sa wàccuwaay. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله والقدرة لله والكمال لله والحياة لله mbokki internet bi ñu ngi nuyu ñëpp di leen di ziar rawatina Sénégal 4 TV nga xam ne site la boo xam ne site bu bu ñu fuglu la waaye site la boo xam ne site bu yàlla baaxal la ndax mu ngi jàllale ay information yoo xam ne information yi am solo la ci biir réew mi di Sénégal te loolu ñu ngi koy bàyyi xel di ko suivre moo xam wàcc neen surtout damay wax ne zéro heure su jotee ma wàcc ci internat bi moom maa ngi toog di suivre Sénégal 4 euh, TV suivre naa ko ay yooni yoon ba tax na euh, suñu xarit euh, suñu soppee bi ñëw fii tey suñu kër ñëw seet si ñu muy Baye asan ñu ngi leen dokkeel bu baax Euh, di la di di rafetlu ñëw bi nga xam ne yaa ngi ko ñëw fii nii seet si ñu tey ci diwaan bi nga xam ne euh, yaa ngi ñu fekk tey ci parcelle ñu nekk fi léeg-léeg sax nga ñëw fekk ñu fële ca asalem Grand Yoff ci côté dibiteer Koromak bi foofu ca kër ga foofa kon ñu ngi leen ndokkeel bu baax di la ziar di ñaan yàlla lépp loo xamante ni mu ngi fi wàcc rek yàlla nekk loo xam ne lu yàlla gërëm la lu yonent bi gërëm la lu wëli yàlla yëpp gërëm la maa ngi leen nuyu bu baax di la ziar. Hmm. léegi def na ab diir waaye tamit jot gi moo ko mayewul ndax xat boo xamante ne nii léeg-léeg di koy faral di xat loolu wax dëgg yàlla ñu lay masawu coono ci côté boobu si coono bi ngay daj ci ndongo yi di ko daj ci xale yi di ko daj itam ci nit ñi nga xam ne ñooy am aajo di ñëw ci yow yal na yàlla fay la sa xol yal na yàlla fay la allahumma amin amin amin sa bi dafa am loo xamante ne nii ñun saa bu ñu ko déggee ci saw tur daf ñuy jaaxal mooy borom mbiri sept jours yi lu a baax borom mbiri sept jours yi nag euh, Baye Assane man ne na wax ne li jaaba la ñaan gu nangu la euh, am na koo xam ne dafay taxaw mu ne lii maa ngi ko jëlee ci sama maam diw am na koo xam ne dafay taxaw mu ne lii maa ko jàng ba man ko waaye am na koo xam ne dafa gasteen ba am lu mu am dañoo góor góorlu ci yàlla yàlla may ñu may ñu li jaaba ak sept jours ñaan gi daal su naree génn sept jours man du ma la ko ñaanal loolu moo tax ñëpp di wax ñii di wax Baye Moussa Diouf borom mbiru 7 jours yi am na ñoo xam ne dañuy wax ne borom cruise 7 jour bi ñii di wax borom ndomba 7 jours yi ñii di wax borom jaaro 7 jours yi loolu yëpp li waral set jours bi daal mooy li jaaba gi du ko dépassé loo 7 jours maanaam su ma lay ñaanal yàlla su ma leeree ne ñaan gi ma lay ñaanal seet naa mbir mi ba dugg ci moom sept jours du ko romb nga am li nga soxla. sept jours moom bu bu fekkee ne euh, nekk na loo xam ne. Mhm. xam ne ne lii luñ mën a liggéey la. Mhm. sept jours moom du ko paase. ak liggéey bu mu mënta doon ak lu mu rëy rëy nag sept jours moom nga gis say mbir. Mhm. su naree romb sept jours may la baal du ko romb. loolu moo tax nit ñi di wax borom mbiri set jours yi te buñ fàtte ne. yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam liir naa ci benn xadis yi muxtaaru xadis mu wax ne ayuma rajulu ataawullahu ilman fakatamoo aljama yowma qiyamati bi li jaamina naar nee na ku yàlla jox tuut ci xam-xam mu nëbbu xam-xam bi mu ne bu yowmal qiyaamee dañuy génnee laxab yoo xam ne dañ koy génnee safara borom xam-xam yooyu yoroon xam-xam bi moo xam ñaan mu nangu la moo xam xam boo war a jox nit la ak lu mu mënta doon mu ne soo ko noppee bu yowmal xiyaam laxab yooyu li ñu génnee def ko ci say gémmiñ te dañuy wane ne kii am na lu ko yàlla may mën a bokk yàlla nañu ci yàlla musal loolu moo tax bi ñu sàkkoo mbir mi it ñu nangu ko accepté ko te suñ xeli boobu la daj hmm. macha allah ci leeral yu am solo yi wax dëgg yàlla ah, mbégte contentement rek la ñuy àndal ah, bi am ci question boo xamante ne nii man xaw na ma jaaxal tuuti ndax itam lu bare bare lañ koy gis léegi ci internet bi. Mhm. mooy ay bis yi ñu génn bërki démb. Mhm. dafa am génn kilifa gu mag bu nekk fii ci Sénégal. Mhm. di wax Moustapha Cissé Lo. fi ay post yu ay ndombal tànk yu kawe kawe. ci Sénégal ak sax ci bitim réew ndax moo nekkoon ki teewaloon Sénégal fu la ca biir Sénégal. dëgg dem sax ba yëkkati ay ay saaga mënees na koo waxee noonu. ni mm-hmm. da am ci ñoo xam ne nag seen mm-hmm. mm-hmm. xam nga am na mbir yoo xam ne euh, nit dinay jël lu moomut loolu dinay xew ci mbir buy wàcc ci kaw sa kaw yi doo ko yëg seytaane dinay dugg ci mbir ba yàqal la ko rab dinay nekk ci yow ba yàqal la liggéey bu la nit liggéey dinay nekk ci yow ba yàqal la loolu nag bu fekkee ne doomu aadama bi dafa nekk ci moom te xamu ko day dem te mu ngi làmbatu te li làmbatu daf ko indil problème waaye laay xaalin luñ mën a wax ba man koo wax rek mooy ah nekk na loo xam ne lu jar a bàyyi xel la ci senegal waaye ñuy wax waa Sénégal yi ne nañ di muñ nañ muñ d'abord beneen bi nañ jéggale beneen bi nañ dalal tey nooyal suñu wax nañ nooyal suñu wax ndax booy wax am na koo xam ne xaatiram wut ak li ngay wax kon booy wax na nga xam li ngay wax lan la ndax wax kaas bu toj la te arab bi dafa waxoon ne wa sirru faktum wala bi bihi inna zujaajatu kasran la yusab mu ne sa mbóot mu ne na nga ko nëbb bu ko tudd ndax kaas bu toj kenn du ko jàng te bokk na ci mbóotam nit mooy secret waxam wax ju bon génn ci làmmiñam loolu dafay yàq secret nit ki ndax secret nit ki dëgg mooy li ko yàlla ñu ngeen nëbbal ko ko secret nit ki dëgg mooy mu ñàkk a juum secret nit ki dëgg mooy mu ñàkk wax wax joo xam ne dafay yóbbu àdduna te wax dëgg yàlla ñu ngi koy masawu aussi di ko di ko ñaanal yàlla ndax damay wax ne doomu aadama yëpp euh, nañ comprendre te xam ne donc ku nekk ci diine rek ci diine nga nekk te nit ki nekk ci diine def benn mbir taxul nga génne ko ci diine mbir moo xam ne sariya génnewu ko ci diine soo ko génnee ci diine it dafa indi problème bàkkaar dinay am njuumte dinay am waaye nag nañ dellu ci euh, rabbana zalamna anfusana wa illam taxfir lana wa tarxamna nakunanna min a xaasirin suñ ko defee rek noppalu suñ ko defee rek danee noppalu ndax daneen juum waaye dañuy baal ndax aadama bi mu juumee sax euh, tooñoon yàlla yàlla daf ko jégal kon nit kii mu juum tooñ bindeef wala mu juum tooñ yàlla yëpp nañ ko baa loolu yëpp daal li koy waral bokk na ci ñetti mbir yooyu lu jar a bàyyi xel la mooy cat wàcc sa kaw wala rab def la ko wala liggéey bu boo xam ne nit moo la ko def te yow xamoo ko amaana sax mën nga koo xam te fekk mënoo koo dindi hmm, loolu yëpp danay wax loo nit danay def loo nit sax Hmm. macha allah ci kàddu yi am solo yi léeg-léeg itam ñoom kilifa yooyee hmm. ah, ñu ci mel ni ay ñoom far baag ña ca des hmm. ah, kilifa yu bëree bëri yoo xam ne ni ñoom lañu mel dañuy faral di dégg ci seen i kàddu ñu demal fu la neex defal lu la neex mënuloo ci ni dañoo xaw a ku wóolu seen gàllaaj ndax da ngay liggéeyal nit gàllaaj bu mu wóolu gàllaaj gi ba àgg ci dimension bi ku mu gis yaakaar ne mënoo ci moom dara waaw man dinaa liggéeyal nit gàllaaj goo xam ne moom bu ko téyee nit du man ci moom dara waaye dama koy wax carrément ne ko lii man yor naa fekk rek spécial boo xam ne su ma la ko defalee nit du man ci yow dara waaye bés boo feeñalee nit ñi leneen manoo manu leen ci man dara man danaa ko dindi te fi ma toog laa toog dindi ko loolu yàlla may na ma ko waaw danaa la ko defal nga jot ci kenn du man ci yow dara d'accord waaye nag bés boo jaaree nit ñi di leen ni wan ne leen kenn mënu ci man dara man danaa ko dindi dama koy dindi ndax yàlla sax dafa organiser àdduna kon yow da ngaa war a organiser sa bopp yow biñ lay jox dara pour di la ko ñaana joxuñ la ko pour nga won ko nit ñi ne leen man maay nga wala kenn mënu ci man dara déedéet da ngay def li ngay def ba pare ànd ak yàlla dimbale la ci li nga xam ne moom leen la defal waaye bul wan nit ñi ne leen li li ma nit defal kenn mënu ci man dara yàlla sax bi muy organisé bind na asamaan suuf si juróom-ñaari fan te bu ko neexoon def ko benn fan loolu yëpp ata anni minallaahi wal ajlu mina seytaan tey dafa bokk ci yàlla te yàkkamti say mbir bokk na ci luñ la defal rek nga gis ko rek wan ñëpp ne leen man man mel naa nangam man loolu ku ma ko def rek man ma dindi ko hmm. macha allah ci kàddu yi am solo yi euh, ma ñëw tey seet si la ci say euh, biir kër ci biir ëtt bi. Hmm. Euh, ma gis fi ci sa wet loo xamante ne nii ba ma ko gëj a gis yàgg na. li hmm. nekk xale laa ko daan gis léeg-léeg yan ñi mag nga daan ko yor. muy course boo xam ne dañuy wax ni junniy per moo ci nekk. Hmm. moo ni juróon na coow fan yee passé. télévision yi ñu looy wax naan. nit mënut a wirdu junniy per benn guddi. course bi lu njëriñam. lii benn guddi man naa cee wirdoo lu mat juróom-ñaari junne salatu ala nabi salatu fatiha sax jurom ñaari junne man nako wirdo ci benn guddigi kon man suma xeye journée bi su fekke ne nekuma ci bir internat bi comme jadi euh, jeudi ak vendredi jeudi ak vendredi bu nekk dinaa wirdo ci salatu ala nabi lu fukki junne ak ñaar ci journée bi kon li buñu waxe ne mënuñ koo wirdo li li dedet ñu ngi wirdo lu raw man damay dug damay duggal nit xalwa wirdu wirdu yoo xam ne dinay romb loolu dinay romb loolu mm-hmm. euh, doomu aadama bi himmatu insaan mm-hmm. yittey doomu aadama bi fu mu bëgg àgg rek mën na fa àgg mm-hmm. te li jaaba nit du ko may nit li jaaba nit ki moo koy may boppam ñaan mu nangu nit ki moo koy may boppam su fekkee ne amoo ñaan gu nangu goo mën a may sa bopp goo mën a góor góorlu ci yàlla ba yàlla may la ko su boobaay mbir mi mën na nekk mbir ma rek mën na nekk rek waaye la koy saxal du fa nekk waaye nag boo góor góorloo ci yàlla day day tax nit ki boo ko ñaanalee yàlla rek ñaan googu moom mi moom mi góorgóorlu yàlla sax boo ñaanalee yàlla yàlla googu def ñaan gi dafay gën a gaaw ci moom sept jours yi sax mën na ko ñàkk man waa am na ñoo xam ne dama leen ñu liggéeyal ci deux jours ñu gis ko ñoo xam ne ci trois jours ñu gis ko waaye bu naree romb sept jours bu ma gisee ne lii day romb sept jours rek ma bàyyi moo tax ñuy wax borom mbiri sept jours yi kurus gi nag nekk na loo xam ne duma ci toogal nit ci du ci toogal nit nit noonu noonal toog ko noonu rek déedéet kurus gi dama koy liggéey ci nga jox ma sa tur ak sa tur yaay soo ma ko joxee dama koy jël ma def ci ay dog dog yoo xam ne su ma ko liggéeyee set jours lay liggéey mais nit ki mën nga ko defal dog te fekk takk moo koy jëriñ lu jar a bàyyi xel la euh, Baye Assane nit dañ koy jox mu jox la ña la ñaanal ma nga nga wirdool ko te fekk wirdo du ko jëriñ takk moo koy jëriñ nit ki dina lay wax ñaanal ma nga jox ko mu takk te fekk takk du ko jëriñ mais suul moo koy jëriñ nit dina lay wax ñaanal ma nga gas suulal ko te fekk suul du ko jëriñ mais sangu moo koy jëriñ am na ñoo xam ne sax sangu du leen jëriñ waaye wàccee ay kaamil moo la ñuy jëriñ am na ñoo xam ne euh, du loolu yëpp moo leen ñuy jëriñ waaye ay sunguf ak ay ren moo leen mën a jëriñ ñun yooyu yëpp dañ ciy dox bu ci nar a romb sept jours res bàyyi asan dañuy bàyyi loolu moo waral mbiri mbiri sept jours yi macha allah ci kàddu yu am solo yi.